sopp nabi chers internet yu enquête 221 dal leen euh, jàmm dalal leen jàmm ci li gën a fës yëglekaay yi ñu commencé kook la libération yéenekaay bi def taxaw seetlu ci subvention yi nga xamante ne dañ ko daan jébbal yenn ci ay organisation mutuelle yu nekk ci biir dëkk bi rapport cour des comptes bii teg baaraamam ci diggante atum 2017 jàpp 2019 scandale bu toll ci 5 milliards 224 millions ci ab organisation mutuelle boo xamante ni ba léegi kenn gisul alal ga en tout cas li wértéeru moo di bu nu sukkandikoo ci biir yéenekaay bi dañ daan ñoddi nag chiffres yi nga xamante ni moom moo doon jëm nag ca mutuel ba te ci gën yéeme nag moo versement yi nga xamante ni jaarul yoon am na ci agence boo xam ne ci diggante bi président Bassirou Diomaye Faye mii di dem ci palais ba président Macky Sall di ko recevoir ci la ñu mujjee tas nag agence boobu et bu ñuy xool ba xool luubal mu ngi biir agence ba en tout cas am boo xam ne nee nañu yooyu yaay versé nañ ko pour union départementale bu région bu Louga waaye ba tey ji laa la wax cent cinquante millions yooyu kenn mënulu ko tracel kenn mënulaa wax tam fa mu jaar après vérification kaay bi xamal nañu ne cent cinquante millions yooyu dañ ko mujjee détourné et pourtant subvention la woon boo xamante ni ñëpp xam nañ fa alal googu waroon na dem te mooy ca union départementale bu région bu Louga ay dañ ko mujjee détourné de am na tamit yeneen kaawu fraude yoo xam ne rapport Cour des comptes bii mujjee ko feeñal tey ci ëpp nag ay la sanction boo xamante ni moo ci topp yéenekaay bi ne am na ci benn projet d'appui boo xam ne moo ñee loolu yenn ci ay mutuelle de santé communautaire ay millions yi millions lañ ci daan dugal waaye bu ñu sukkandikoo ci Cour des comptes millions yooyu dañ ko mujjee détourné di ko jox ay chanteur ay mbër sax nañ ci ba ci ay nit ñu siiw ñoo xamante ni ñu ngi ci biir dëkk bi bés bi le jour moom des ci coowal suuf ne moom ci biir réew mi gannaaw mbuur kaat mi nga xamante la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye dafa jékki-jékki rek daat fay dem fekk doon jëqat-jëqat xottee suuf sa yéenekaay bi xamal nañu ne ndekete yoo ville de Thiès moo gën a pire sax laa la wax la xew ca mbuurkat te ci suufak Thiès gi nga xamante ni doomi Thiès yi amatuñ ca dara seeni kilifa ñoo profité ca suuf sa de paccoo ko ba jamono ji ville de Thiès dara deseewu ko ci suuf yéenekaay bi ne ñu ngi fàttali ko président de la république Bassirou Diomaye Diakhar Faye ba mu demee ca mbuurkat am na benn leader politique bu mag boo xam ne mu ngi ko doon junjoo ne mënul comprendre moom kase rekk dong nag yor fi ay hectares yu bari yéenekaay bi nee na kooku ndaamal kajoor la de Idrissa Seck ci boppam laa la wax de Thiès lu tolloog 13 hectares yoo xamante ni moo ko moomal boppam te lii nag moo merloo woon président de la république keroog bi mu demee ci Mbour bay def nag vérification yi ndekete ndaamal Kajoor 13 hectares yi kilifa yoo nii ci jamonoy nguuru Macky Sall fi mu rapport bi laa la wax tudd seen tur ne ñoo doon cëqat cëqatee suufuk Sénégal gii dañu ci bëri nag ay ministre lañ wala boog ñu nekkoon jegeñaale nguur gi fi nekkoon hectares la am ci suufuk Sénégal gii yéenekaay bi tudd na ci ku ci mel ne Pape Diop nekkoon na fi meeru Dakar Youssouma jigéen Ndour fekkee ma ci boole Cheikh Omar Anne moom it ca la bokk Arona Dia ak Daouda Dia Kalidou Wagué ba ci Amy ñii bi nekk député ci Assemblée nationale ak Antoine Félix Diome mi fi nekkoon ministre de l'intérieur ak yeneen i autorités yoo xamante ne di dendee woon nañu ak gi ñoom ñëpp laa la wax kenn ku ci nekk ak say hectare ci suufuk Sénégal gii lii moo taxoon président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne li ni mel nag dafay dakk nañu suspendre lépp luy joxe ak jënd ak suuf ci biir réew mi ba ñu régler nag coowal suuf si ba noppi ba tey yéenekaay bi di ñu xamal direction générale de l'urbanisme ak direction des domaines coowal suuf li mu na fa kur yéenekaay bi di xamal ne ca Mbour 4 extension parcelle la def mu nii moom jeex na ay délégué de quartier lañ ko jox ay communicateur traditionnel ak yenn ci ay kilifa yoo xamante ni ci presse la ñuy liggéey ba ci membre société civile bii laa la wax am nañu ca am ay suuf ak tam ay kilifa nañ ci suuf ak Mbour yi jox leen ca maanaam daal ci gàttal nguur gi fi jógee moom moom mm-hmm. président Macky Sall da doon dagg suuf si rekk di maye am na ci sax jamono ji benn fonctionnaire boo xam ne jéem naa arrêté nag ay procédures judiciaires yu bari lépp nag ñeel coowal suuf si vox populi ba mu dellusiwaat ci suñu week-end wii nga xam ne awoon na tar ci sénégalais yi de ay accident yi accident laa la wax lañ ci compté lenn li ci diwaanu Saint-Louis lii ca Sédhiou ak ba nekk ca Daaru Xuddoos yéenekaay bi na ci diwaanu Ndar am na ci ñaari xale yu jigéen yoo xamante ni dañoo mujjee ñàkk seen bakkan gannaaw ba benn bâtiment màbbee ci seen kaw te yéenekaay bi xamal nañu ne bâtiment bu màgget la woon ca commune bu Sitaba benn sept place moom bëkkante camion juróom-ñaari blessé am ca ñett nekk ci cas grave ba tey ci week bi bii yéenekaay bi xamal nañu ne ca Medina Fall ab oto de moo mujjee saaraan ci benn école trente blessé la ñu mujjee compté ca biir école ba yéenekaay bi deesuwaat ci wàllu politique ak parti bii di Pastef ndax ci week-end bii seen bureau politique bi def na première rencontre gannaaw ba ñu tasee woon parti ba def nañ seen première rencontre gannaaw ba ñu gañee élection présidentielle yi ñu jógee yéenekaay bi ne président Ousmane Sonko yëkkati ba ñu amee ndam lu rëy ci élection présidentielle yi ñu génn jotaat ci seen parti politique bii nga xamante ni dañ koo tasoon tas gu jaarul yoon ci seen réunion bureau politique bii nag président Ousmane Sonko moom miy njiital parti bi mu ngi xam ne ci biir yéenekaay bi ne lépp luy activité bu Pastef dinañ ko tàmbaliwaat ci biir réew mi ak bitim réew te congrès parti Pastef nag dana am ci fan yi ñu jëm moom président Ousmane Sonko di xam ne ci biir yéenekaay bi ne li mën a waat ci kanamu askan bi nag moo di ba jox ko réew mi sénégalais yii dinañ ci am ndam lu rëy nag ci lépp loo xamante ni seen soxla la lii nag mën na koo garantir yemu ca moom président Ousmane Sonko ndax lancé na message tam njabootam gi nekk ci biir Pastef te leen di xamal ne nag coono mu ngi soog a tàmbali liggéey mu ngi soog tàmbali il faut que ñu libérer nag peuple Sénégal bii ngir mu mën a jotaat boppam ñu jub jubal jubbanti nag réew mi nga xam ne amuñu leneen lu ko gën président Ousmane Sonko di xam ne ci biir yéenekaay bi na man de personnellement damay assumer laa la wax ouverture bi nga xam ne Pastef dina ko def ci biir réew mi ak bitim ak Burkina Faso ba ca diwaanu Niger lépp ngir mën a dundalaat nag relation yi ñu am ak yeneen i kilifa ak yeneen i parti politique te ci fan yi ñu jëm dina am ay kilifa yu mag yoo xam ne dinañ jugee ko bitim réew ñëw ci Sénégal gi seet si wuñu kenn na ku dul kilifa yi nekk ci biir Pastef yéenekaay bi ne en tout cas nga xamante ni président Ousmane Sonko digée woon na ko ci réew mi ne dina démissionné ci poste mairie bële ca Ziguinchor moom ak gouvernement képp ku ci yor ñaari responsabilité di nga démissionné ci benn bi ngir mën a concentré wu ci sa liggéey ci gouvernement bi yéenekaay bi xamal nañu ne digée googu nañ koo def ndax ministre de des mines su Souleye Diop démissionné na ca méeréem président Ousmane Sonko démissionné na ca méeréem Yankhoba Diémé démissionné na bu amee kenn ku des ci biir gouvernement bii te démissionné gul du kenn ku dul Maïmouna Dièye mi nga xamante ne nii ba demb demb démb rek laa la wax démissionné gul nee na nag ci fan yi ñu jëm nag dana démissionné en tout cas bu ñu sukkandikoo ba tey ci biir yéenekaay bi Bassirou Ba àdduna ci scandale bii ñuy dégg ci semence bi nga xamante ni ci jamonoy Macky Sall am ñoo xam ne moom dañ ci doon profito di jël semence bii di ko moomaleeg seen bopp baykat yi nag duñ ko teg bët benn yoon moom Bassirou Ba di xam la ci biir yéenekaay bi ne mafia bi nag bu état bu Sénégal bi bëggee xam fan la nekk na dénk rek liggéey bi armée national ñoom suñu soldat yi rek mën nañ régler problème bi ndax na ñoo xam ne dañ doon profité ci ay milliards et milliards def ci seen poste lépp nag ci campagne semence bi kese la boo bëggee dégg-dëgg vrai yi laa la wax joteewuñ ci semence bi te nag su boobaa ñoom suñu soldat yi nañ dem rek vérifier ci gouvernance yi ci préfecture yi ci mairie ba ci sous préfecture yi bu ñu bàyyi sax commission yi nga xam ne ñoom lañ taxawaloon pour ñuy def distribution élection bi foofu nag la scandale bi nekk yemu ca moom Basiru Ba ndax mu ngi sàkku ci nguur gu bees gi mu fexe ba ñu teel a xam nag njëg gi ñuy jëndee gerte gi bañ a bàyyi ba ñu bay ba noppi bu koy soog a joxe comme ni ñu ko nguuru Macky Sall miinalee woon nañu renverser tendance bi nag ñoom nguur gi teel a joxe prix gerte gi l'observateur moom def taxaw seetlu ci yoon wi nga xamante ni Pastef jël na ko ak projet bi nga xamante ni jamono ji mu ngi standby yéenekaay fii ba 2026 bi di laajte est ca dëgg-dëgg projet bu Pastef bi la wala projet PSE en tout cas ca ëpp ci la ñu présenté mu nga ca plan Sénégal émergent Les Échos yéenekaay moom def taxaw seetlu ci immeuble Iliman Lam bii nekkee ci avenue Faidherbe jamono ji nga xamante ni sous-préfet bu Dakar Plateau sàkku woon na ca ña fa nekk ñu génn fa ca na mu gën a gaawee xeex da mujjee jur ndax commerçant ya lànk la def ne duñ fa génn Cour suprême nag parti bi sax waaye coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky Sall ba léegi si moo ngi koy surveiller ci seen rencontre bi nga xamante ni am nañ ko ci week-end bii président Macky Sall wax mu yónnee ca Dakar amal nañu benn rencontre ci diwaanu Kaffrine ñoom coalition Benno Bokk Yaakaar président Macky nag yónnee fa ab délégation ba noppi woote téléphone directement wax ak militant yi sàkku ci ñoom nañu ànd nekk benn ngir mën a continuer liggéey bi nga xamante ni moo leen di xaar rawatina ci élection législative yi ñu jëm le point actu ne wax ji wax ji kay mooy président Macky seppi na Amadou Ba ba mu set wecc nag ci biir Benno Bokk Yaakaar ndax booy xool au lieu mu dooleel ko ci statut chef de l'opposition bi nga xam ne am na ko président Macky Sall la defu ko de seen rencontre bii ñoom waa Benno Bokk Yaakaar ñu doon amal ca diwaanu Kaffrine délégation bi président Macky Sall yónnee Amadou Ba bokk ca de Abdoulaye Daouda Diallo daal la président Macky Sall wóolu mu ànd ak Amadou Mame Diop président assemblée nationale maître Sidiki seen première rencontre boo xam ne Amadou Ba mi nekkoon seen candidat assisté ko yéenekaay bi ne en opposition bi bu fekkoon ne dañ na tekk tekkaaral jamono ji nekk yaa ngi raam de ngir mën a yëngatuwaat ndaxte waa PDS ñoom itamit ci week wii gisante nañu gannaaw ba ñu jaajëfalee nag état bu Sénégal ci liggéey bi ñuy def ci rapport yi nga xamante ni feeñ na ci fan yi ju génn ñoom libéraux yi nag ñu ngi defar seeni sàppe waajal épinglé wu ko kenn tudd ko et pourtant bu ñuy xool ci jamonoy campagne électorale bi daanañu dégg Amadou Ba mii ñu koy tuumal ndekete dara du ci dégg réseaux sociaux yeeg journaux yi foo toll yaa ngi doon dégg turu Amadou Ba yéenekaay bi ne fekk ci jamono jooju am na ñeneen ñoo xam ne ñu ngi woon ci gouvernement ba jamono ji ñu ngi leen di tudd ci rapport yi de ku ci mel ne maître Moussa Mimi Touré ba ci Mansour Faye ñoom ñëpp kenn ku ci nekk yoon waaye moom daal Amadou Ba kenn épinglé wu ko kenn ku nekk ñoom ñi bind nga sab article ngir mën a justifié wu ci tuuma yi ñu teg ci sa ndodd yéenekaay bi di laajte nguur gi ñu jàkkaar lool fan lay mujjee rapport yi nga xamante ni moom la Cour des comptes ak of nag génneem ndax dana ca dem nag ba sës source a na si ñi nga xam ne ñoo ngémboon Bassirou Diomaye Faye ba mu mujjee jot nguur gi yéenekaay bi dañu xamal ni kuréel gu ci mel na lakos fi mu am na coow lu sew lu fa nekk te ñoom ñoo nekkoon doon jàppale nag président a dañu ne nag ñenn ci ñoom fi mu toll nii dañoo mer ndax ni ñu defee yenn ci ay nomination ñoom gisuñ ci seen bopp lakos nag yéenekaay bi xamal nañu ne fukki parti ñoo ci nekkoon ca biir ak ñett ak yenn ci ay mouvement booy xool ba xool ci biir gouvernement bi benn ci kuréel yooyu di MRDS ak parti Giras yi ñoom dong ñoo gis seen bopp ci gouvernement bi ndax ñoom lañ tànn ki seen responsable dugal ci gouvernement bi sax booy xool ba xool leaderu MRDS dañ ko mujjee zappe ci gouvernement bi am yeneen responsable yoo xam ne ñoo ngi ci biir lakos du kuréel gi doon jàppale président Ousmane Sonko bi mu nekkee ci kaso bi jàpp nañ ne nomination bu docteur Abdourahmane Diouf am na yeneen yu ko gënoon jekk de ndax moom même bu fekkoon ne candidat la dernière minute la ñëw alors que fiche de cotisation yi nekkoon ci biir coalition Diomaye président moom ci boppam dugalu ci cent francs de te na ay responsable yoo xam ne defoon nañ ci ay sacrifice te bëri na ci ñenn ñoo xamante ni lu mu néew néew versé nañu lu tolloog 3 millions de francs CFA ay ci mel ne Mary Teuw Niane nag moom jàpp nañ ne participation sax dafa desoon ndax 1 million 500 mille la participé woon yoon ci 3 millions yi nga xamante ni lañ ko laajoon ba tey ci biir lakos yéenekaay bi xamal nañu ne parti politique bu nekk ci biir coalition bi Diomaye président li ñu la laajoon mooy nga participer 1 million de francs CFA bu dee mouvement yi 500000 am na nag ñoo xamante ni joxe woon nañu waaye am na ñoo xamante ni moom dañoo zappe woon ku ci mel ne moom ba ñu waxee leader kenn ku ci nekk joxel nangam moom six la jël teg ci table bi te tey jii kenn numewu ko dara teewul mu ngi ànd ak ngorom la mu waroon def def na ko ca biir coalition ba <laughs> ay baax na ñu yéen mbokk yi bu subak jàmm